mbokk taalibe yi mbokk Sénégal ak suñu mbokk yi nga xamante ni ñoo ngi si diaspora bi ñoo ngi leen di nuyu di nuyu yow tam sëñ Moodu di la ñaan defal la jàmm defal ñu jàmm defal ko bépp jullit si barkeeb suñu Tuubaa Xaadimu Rasuul waaw bu dee garab yi nekk sama ginnaaw yi ay sunguf la ay sunguf yoo xamante ne yii day faj ndoxum sidi yii day faj émérite mu jàngoroy kajoor yii day faj néew kàttan moo wax ne buy sëy du am doole wala buy sëy day gaaw daanu wala mënu bi bu baax yii day faj jabet jabet mooy feebaru suukar la kuliyaal képp ko xam loolu dal na la si kàttan yàlla pot yi nga gis nii yëpp moo xam potu ndoxum siti la moo xam potu hémorroïde bi la muy jàngoroy kajoor moo bu néew kàttan la moo xam bu jabet benn pot bu ñu la ko joxee balaa moo jeex nga tàggoog di la dal bu dee jàngoroy kajoor mooy def biir buy seere biir bi di metti di jam di tàng di yuuxu jàpp ndigali mi metti wàcc bi si suuf tànk yi yëg ba si loos bi ngay toog ay fan doo dem duus mun na dem ba fa ngay demee duus def picc

ne ñoom ñooy liggéey baykat tubaab te baykat tubaab xaqiqatan bu wér bi man maa koy liggéey man lu ma dugal si YouTube bi doomu aadama laa faj ma ko fajee mu dugal ma si YouTube ndakat moom dafa ay site internet boobu tey ne maa ngi si gis sama waaye bëri na ñoo xam dañuy toog si YouTube bi ne ñoom dañuy def nangam ak nangam te bu ñu noppee dañuy ñëw si ñi nga xamante ne courtier sëriñ am na waaw waaye baykat tubaab xaqiqatan bu wér bi man sëñ Mourtala maa koy liggéey bu ñu ko liggéeyee sangat la boo xamante ne day ànd ak jaax jaaxar booy takk sa loxo sangat bi juróom-ñaari fan nga koy bu jant gi di waaj a fenk sangoo voilà kuliyaal ñi koy liggéeyal mooy ñu dëkk tubaab yi bëgg lépp lu ñuy liggéeyal ci tubaab bi yàlla yombal ko ba du jafe jafe si ñoom loolu mooy bayre tubaab waaye day am nag sangat boo xamante ne da koy sangoo juróom-ñaari fan ak jaaxar booy takk sa loxo si kàttan yàlla koo jëflanteel dina la sopp ku la gis dina la bëgg lépp loo jëf dem di ko liggéey si tubaab bi yàlla dina ko yombal ala kulli aal am na nag ñu koy woote woo jamono guñ toll waaye baykat waa katan bi bu wér bi man sëñ Moustapha maa koy liggéey te bari na ay sëriñ ñoom dañuy ñëw fii di ma ko laaj mooy si waxtaan ak ñoom leen si jox yenn secret yi waaye bu ñu demee toog day mel ni ñoom xam-xam bi seen xam-xam la te fii lañ ko jëlee si man waaw liggéey dafa nekk si yow ak liggéey bu mu doon am na loolu bu ñu la ko joxee muy cuuraay boo duggee si biir duus nga suuroo ko bépp liggéey bu nekkoon si day dañ ala kulli aali kooku dañuy toj liggéey jooni jooni mën nañ la tamit jox alxuraan lan boo ko sangoot fi nga toog tamit nga yëg liggéey bi tàggoog na yow jooni jooni toj liggéey jooni jooni la boo ñëwee da ngay toog ñu tàggale ak liggéey bi la dal ba nga xam ne dañ na si yow nga soog a fay sa xaalis bu demee nag si ni nga wax mooy aar sa bopp aar sa bopp comme koo xam dafa bëgg li ko gàllaaj bu koy aar am kiiraay ba doomu aadama du mën si moom dara yor nañ ay nombre yoo xamante ne moom lañuy wax nombre të mag yi ñoo ko tuddee woon ndomba të ndomba yi képp ku ko takk mucc nga si yàlla bind moo xam kuy xàmb moo xam kuy fas moo xam kuy jalan moo xam bu xaaba moo xam kuy xaatim ak xam-xam bu doomu aadama mën a yor boo takkee ndomb boobu mucc nga si moom walla kuli aali si kàttan yàlla bayre am na waaye bayre dafa bayre façon bu dee bayre place am na am na liggéey ñaan jox ne bi ñu la ko joxee doomu aadama nga def ko si li ngay jaay ala kulli haal képp koo gis dina ko jënd même bu ñu xaalis bu demee ne jënd xaalis ñëw jënd ko kooku si umu Moussa alayhi salaam dañu koy liggéeyee mooy bare place képp ko xam jox nañ la ko si li ngay jaay képp koo gis rek ala kulli haal bu ko jëndul da am jàmm même bu amul xaalis na dem utaat xaalis ñëw jënd ko waaw mais bayre nag mu nekk si yow jëmm ji moo gën nga ne foo dem yóbbaale ko am na bare yoo xam nomba lay doon buñ liggéeyee nomba yi ba jox la nga tax ko sa ndigg foo ne yow la ñuy dégg te foo dem da nga koy yóbbaale la kuliyaay am na bayre jigéen mooy ñi nga xam ne moo gën a ñàkk solo nag a bayre jigéen kese am na waaw la kuliyaay am na bayre pour maçon yi ak menuisier yi ñi nga xam ne dañoo bëgg ay chantier la kuliyaay bu ñu ko liggéeyee ba jox la ko bépp chantier boo xam ne gis nga ko rek te bëgg ñu jox la ko boo indee suuf si rek bu ñu liggéeyee loolu ba jox la nga defaat ko ko la kuliyaay chantier boobu dinañ la ko jox la kuliyaay waaw jigéen bëgg borom kër mu tëggu am na voilà kuliyaali ndax li koy waxal ci doomu aadama dafa bari jigéen toll ci sëy te mënta sëy yi lu koy waxal bari na ndax am na ay jamono yu yàgg yoo xamante ne am na lu jigéen ñu doon sol ñu koy wax jumbax aaw jumbax aaw jox na ay doomu aadama yu bari ndax ñi tolloon ci jamono yu jumbax aaw ba tey ñoo fi toll ñi amuñu jëkkër ñi mënuñu am doom ndax seen jumbax yooyu doon feeñ maanaam nu doomu aadama di gisee di bëgg jinne tam noonu day gisee jigéen bëgg ko ndax suñu borom xalaq ins wala jinne la nit ak jinne la saat jinne nag mooy rab da jinne yi dañoo def en différents sectes dañoo partagé wu xeet xeet xeet gu bari xeet bii gëm nañu yàlla di ko jaamu di ko liggéeyal xeet bi gëmuñu yàlla si lu bon la ñuy nekk ñooñu nag ñooy rab yi nga xamante ne ñooy sonal doomu aadama ñooñu nag bi ñu gisee jigéen ba bëgg ko néew na yow mi góor gis jigéen ba bokk nga tax ko waaw li si ëpp rab moo koy def liggéey tam dina ko def ñu liggéey la pour nga bañ a am jëkkër cet dina ko def waaw li koy cause yi dafa bari mais loolu foo nga xool ba xam ko te jigéen ñi tamit taxaw si buntu néeg nañ ko yi taxaw si buntu kër wala toog si buntu kër jigéen du ko def bépp jigéen boobu yaa nga taxaw si ay buntu néeg buntu kër wala toog si buntu kër nanga nga xam ne say xaq yëpp say xaq nañu sëy ci doo sëy waaw bopp neen baaxul jigéen dox timis baaxul si moom voilà ku yàlla yëpp na ko jigéen ñi moytu bu demee si loolu nag jigéen bugg am doom tamit mu tëggoo am nañ loo xam ne loolu yëpp li ma doon waxaat rek muy jumbax aaw yooyu bokk na si lim si causé seen jumbax yooyu doon doon feeñ nga xam ne jinne yi muy rab yu bon yi parce que ñi wax ay dëmm te boo wax ñu ne dëmm amul waaw ku leen dëmm amul da koo jàppagul ku leen dëmm amul ne ko jàppakul ñooñu ñëpp bu ñuy xool doomu aadama ba xam li nekk si moom wala bu ñu koy dugg sànni ngelaw lépp fi ñuy jaar mooy si jumbax bi am na ñuy jaar si nopp yi nopp yi dugg mais am na ñu bari si jumbax ji la ñuy jaar waaw te jigéen ñi bari seen jamono dañ doon sol ay jumbax aw bàyyi ko noonu sa jumbax yi di feeñ waaw léegi nag ñooñu nekkoon ñoo toll si jamono gi sëy maa toll si am doom te mënuñu ko am te rab yi ñoo leen ko teg ndax rab yi dañuy yàq rek jamono gi paas ñi doon dem si géej

am na jinne yoo xam ne gëm nañu yàlla waaw ndax yàlla dafa bindoon jinne yi pour ñu jaamu ko ak doomu aadama yi waaye am na si ñoo xam ne gëmuñu yàlla dañ nekk si lu bon rek ñoo nag ñooy sonal doomu aadama yi ay gàllankoor loolu moo si nekk sëñ Maodo. waaw lu si wàllu këyit dañ siy ñaan voilà doomu aadama moo xam da ngaa tubaab yi bëgg këyit ndax boo nekkee foofu te amoo këyit sa nekkin neex te pour nga am liggéey day jafe wàllu këyit dañ siy ñaan voilà kulial ñi si mos a jëflante lépp yàlla may na leen këyit ñu bëgg nationalité tamit dañuy ñaan si wàllu nationalité ñu bëgg euh, passeport dëkk am visa dañ siy ñaan bépp këyit bu doomu aadama di yënte rek te mu tëgg si kàttan yàlla dañ siy ñaan te laa kul yàlla bi si ñaanee yàlla da si def loolu moom amul si ak saak dangaa laaj li nga xamante ne kenn féetewu ma si kaw muy fay coow Sénégal ba Sénégal daj da ngay yox ma yox si fay coow ñu tolloo mun mënoo ko yox ma yox ma lu féetewoo kaw dañuy fay coow ak coow bu mu mënti doon si kaw suuf dañ koy fay bii bi ñu ko liggéeyee ba jox la ko nga gas pax pax moom xóot nga taal ko bee da nga koy def saafara mu safara si rek nga sotti ko si tàq-tàq bi nga suulaat pax bi da nga koy gas ba sol pax bi toll sa loxo bi fii lay toll si conc bi fa lay nga dugal xaati bi ñu la jox foofu taal ko mu tàkk bi nga def ko saafara fayee ko coow li suul ko fa la coow li di yem laa kulli aali ñu ko mos sa defal yépp te ñu may dégg xam nañ ne ku ko defal rek coow loolu fay na ala kulli aali loolu moom sëñ Modou sant nañ la gërëm nañ la ci laaj boobu nga ñu laaj. waaw maanaam liy waral tàggu sa sago dafa bari am na association bu ma gis ñoom ñiy liggéey ci jàppale ndeysaan ñi wéradi yi mais wéradi lu koy waral si doomu aadama dafa bari ñett dof ñett la dof ñett la dofuñu dañoo feebar. seen mbokk loolu nag moo bëri si dëkk bi dafa ñu ñiy nekk si mbedd gi jàppale association boobu di jàppale malades mentaux yi ñuy wax ñooñu dafuñu de ñooñu dañoo feebar seen mbokk amuñ lu ñu leen fajee ñu bàyyi leen noonu kooku mooy dof mu njëkk bi ñaareelu dof mooy koo xamante ne moom day dem rek te fu mu jëm xamu ko lu muy ëpp lu muy def rek si ñàkk xam la koy defee daal waaw moo suñ tubaane yow mu takkalaf balaa ngaa jëf na nga xam li ngay jëf bul jëf mukk te xamoo waaw képp kon de day jëf li muy jëf xamul si dara kooku dof la ñetteel dof mi nag mooy dof bu gën a mag nag dof dëgg bu tax ñu naan dof mu ngi si biir nit ñi di sol li nit ñi di sol di lekk li nit ñi di lekk di waxtaan di naan ataaya fekk ala kulli aal kooku mooy dof dëgg waaw dof dëgg sëñ bi mu ngi si biir nit ñi <laughs> maa la wax loolu bu jëmee nag si li nga xamante ne ndax tànku sago li koy def dafa bari waaw bu jëmee si ñi ma la njëkk a wax ñooñ dañoo feebar seen bokk am ñu leen fajee ñu dem ñooñ nag lañ Sénégal di wax dof waaye képp koo xam ne da ngaa taawu sago boo ñëwee bañ xool ko ba xam ne li la ko teg bu ñu ko saafara dañ leen mën nañ ko bu ko mënul nañ la wax ne mënuñu ko waaye daal xam naa ne bëriwuñu si lu ñuy ñaan si loolu ndax bëri na ñoo xam ne dañoo dof te leen def loo ñoo ko teg seen bopp bëri ñu def tamit sa yàlla moo leen nattu gis nga wax ji waaye bu dee daf koo xam ne liggéey moo liggéey doomu aadama moo ko def wala rab moo ko def doomu aadama waaw loolu mën nañ ci dara ndax yonent yàlla Moussa dafa amoon bés mu ne yàlla yow sa maandu si àdduna daf maa jaaxal lii di xew yëpp yàlla yow nga maandu def nii damaa bëggoon xam nag yow yàlla sa maandu te suñu borom ne ko bés sàngam bu jotee na nga dem barab sàngam am na dex bu nekk foofu noonu si dex ba am na garab bu nekk si ginnaaw na nga làqatu foofu ba mu ne la génn nga soog a génn yonent yàlla Moussa dem si dex ba ba bés ba jotee mu dem si dex ba gis garab ko suñu borom waxoon Moussa làqatu si ginnaaw garab ga mu des tuuti mu gis gawax guy ñëw fas buy ñëw bëri bëri loolu pënd gi di jóg ba muy ñëw ba wàcc si si si wàcc wàcc si dex bi lu mel ni genre soldat moo ko wàcc ba mu wàccee mu tànk si ndox bi naan tànk nandal fasam sërëm kanam bi yéegaat ci gawax yéegaat si fas bi dem yoonam ba mu demee lépp mu saa mu ngi si ginnaaw si ginnaaw gi rab di seetaan ndax suñu borom moo ko ne taxawal foofu moom man ma jàngal la àdduna sama maam itam ñu des tuuti benn xale bu ndaw di ñëw xale ba muy ñëw moo ngi daw di fecc di yuuxu ñëw ba si ndox bi sël mu foo nan ndox sigg rek yem si mbuusu xaalis moom lépp xaalis la mu ne lii de xaalis la lépp nekk ay or

ka waroon fas ba ka njëkkoon wax fas ba jaax fa ñëwaat nag di daw bu baax ba mu ñëwee wàcc si fas bi mu gis góor ko toog di jaamu yàlla mu ne ko góor gi ndax ba nga fi ñëwee yàgg góor gi ne ko xaw na yàgg mu ne ko ndax ba nga ñëwee fekkoo fi kenn góor gi ne ko fekkuma fi kenn mu ne ko ndax ba nga fi ñëwee ak kenn jóge fi tamit dem yoonam góor gi ne ko fi daal ba ma fi ñëwee gisuma kenn te kenn ñëw bi man rek maa fi nekk moo fi ñëwee ba tey man kese maa fi nekk waaj na ko waa kay sama mbuus xaalis laa fi fàtte te comme si yow bu nga fi ñëwee yàgg na te ba ngay ñëw tam fekkoo fi kenn te ba nga fi ñëwee bi léegi tamit kenn ñëw bi <laughs> kon nag sama mbuus xaalis yaa ko jël góor gi ne ko man taluma xaalis soxla ma man jaamu yàlla laa tal waa ji ngi taxaw si ginnaaw jaxab ba di seetaan waa ko góor gi sama morom bàyyi nga jox sama xaalis góor gi ne ko man gisuma xaalis jëluma xaalis waaj ji wàcc si fas bi génnee jaaseem ne góor gi naa compté ba ñett soo ma joxoon sama xaalis naa tàqal si bopp ak sa baat góor na ko gisuma xaalis waaj na benn ñaar ñett dagg bopp góor ga bopp dal fële mu jël jaasa gi xasaat ba mu set dungalaat si mbaxam yëgaat si posam dem yoonam ba loolu amee Moussa moom tiit na bay lox mu génn taxaw ndax moom moo waxoon suñu borom sa te laa bëgg xam si àdduna lii xew yëpp yow nga maandu si Moussa tiit lox génn suñu borom ne ko Moussa waroo woon génn da nga taxaw ma leeral la ba mu gën a leer sa bopp da yaa ma laajoon sama maandu leen waaye li nga fi jot a xew-xew yëpp man yàlla la ko expliquer suñu borom ne ko ki njëkk ga te ñoom suñu borom ne ko ñett ñoom ñett ñëpp kenn amu si bàkkaar waa ji rey góor ga amul bàkkaar góor ga bañ rey amul bàkkaar xale ba amul bàkkaar musaa gën a gën a waaram yaa ngi may dégg suñu borom ne ko ku njëkk ga dafa liggéey loo bàyyi xale bi liggéey liggéey loo na ko liggéey bàyyi xale bi liggéey na ko at fayu ko bàyyi xale bu wax na wax ba sonn benn muy bàyyee si moom fayu ko mu mu yor xaalisam liggéey ak ba bay góor nga génn àdduna bàyyi xale bi génn àdduna xale bi jirim la xaalis boobu mu bàyyi foofu noonu dafa tolloog la mu waroon fay bàyyi xale ba si at xaalis bi noonu la toll ëpp jeesu moo tax man suñu wax ma fàttale ko foofu ma def sama man xale bi ñëw foofu di foofu ba gis xaalis bi yóbbu ko xale ba xaalis bi ñu jël xaalisu baayam la moo ko moom da koy waroon fay fay baayam te fay ko kon xale bi génn na si suñ borom ne ko góor gi góor gi ñu rey ba mu toll si diggi dooleem waxambaane la bu amoon doole waaye doon dogaale nit ñi nangu seen alal te moom mujjam ku baax la nga foo ko fekk day jaamu yàlla te ki borom fas bi tamit moom tamit ku baax la ñoom ñëpp bëgguma bu ñu dee ñu dem safara damaa bëgg ñu dem àjjana yaa ngi may dégg mu ne góor ga dafa dogaale bàyyi borom fas ba ki ko rey dafa dogaale woon bàyyam su jamono bi muy nekk si diggi doole bëgg na ko alal bàyyi ji bañ mu ne góor ga mos na rey nit nag waaye xëcc bu ñu xëcc nag alal alal góor ga si la kooku deeyee mu yóbbu alal bi góor googu mu reyoon nag kii ko rey mooy bàyyam léegi moom jaamu naa ba war a dee dem àjjana te faw moom mu mu fay bàkkaar boobu mu defoon moo tax man tam si borom ma yebal kii tamit mu ñëw dagg bopp góor ko ñoom ñëpp ñëpp kenn tooñu mas ku si dee loolu boo ko jàngatee da ngay xam ne suñu borom si boppam mu ngi liggéeyante ay mbiram si àdduna est-ce que wax ji moo tax boo gisee doomu aadama moo xam ku wéridéeg ku dafak ak lu dal doomu aadama da nga si maandu te tey si di nga bëgg a dimbali doomu aadama di nga fekk nit si pax nga jox ko loxo pour xëcc ko mu xëcc la nga fekk ko si pax bi dégg nga wax ji moo lépp loo yaa ngi siy dugg na nga ko xool bu baax a baax ñii dañoo alku ñii dañoo trox ñi nattu yàlla moo leen dal dégg nga baax li ma la wax dama leen a dof ñii dañoo alku ñii dañoo trox ñii nattu yàlla moo leen dal ku alku nag mënoo ko saafara ku trox mënoo ko saafara ku yàlla nattu nag moo xam dañ koo liggéey moo xam nattu yàlla kooku mën nañ ko saafara dañ koy xool ba xam ko rek mais li jëm si wàllum dof bërxul lu ma siy faj daal ah <laughs> sëñ si moom damay wax si ñoom rek mooy baatin kenn du ko jàng baatin baatin mooy lu nëbb saayax mooy lu feeñ lu nëbb noo koy jàngee baatin da koy dond maa nga tax bi yowu ko mbaa def ko si yow xam-xam da koy jàng boo gisee tappale yi bari dañoo jóg def asraar métier te asraar du métier asraar du métier li ma la waxoon ñu nekkoon ay géwél ba tey ñoo nekk ay géwél ñu nekkoon ay tëgg ba tey ñoo nekk ay tëgg yi seen maam nekkoon ñeeñu ba tey ay ñeeñu lañ yi seen maam nekkoon alpulaar ba tey ay alpulaar lañ xam day daw si deret di topp doomu aadama bi loolu mooy baatin dëgg baatin da koy dond baa nga tërbiyewu ko baa ñu def yow xam nag da koy jàng ñu jàng xam bi nag ñoom ñoo si dugg léegi te amaana ñoo xamante ni sax taxafatul ay ni asraar xamuñu ko yenn saa yi ma toog déglu benn sëriñ boo xamante day wax asraar fekk lañ wax si asxaar dara li muy wax si asxaar méngoowul méngoowul ak li ne asxaar yàlla xam na ko ma gis ñi jël ay ay ay carton teg si gi di si ataaya loolu science naturelle rek loolu du dara jël carton teg ko si safara di si ataaya du dara barki Mohamed jël nañ toj ko génnee jaaru ay tapale la yooyu yëpp ay xeetu tapale la xam loolu kiraama kiraamatul ay nii la kiraamatul ay nii du dara mën dafa yal doomu aadama dara est-ce que nga wax ji jël këyit def ko xaalis jël xottu butéel yéey ko teg carton def si ndox di ataaya jël carte def si ne da ngay omelette yooyu loolu xam-xam de ay science la ak tappale loolu du asraar asraar beneen yoon la waaw loolu bépp sëriñ boo xamante ne yaa nga yëngu si turu yàlla asraar dafa ànd ak jaamu yàlla asraar xaatim la ilmul nujoob mooy am xam vidéo yi ilmu adat yang ngi dégg yeneen lo ci dugal li wax ci xaatim ilmul ilmu adat da weesul aaya yàlla yi ak turu yàlla yi ak salaat nabi yi asraar nag dañ ko fekk ci yeneen téere yu bokkul ak alxuraan da suñu borom wàcce na injil alquran soog a ñëw téere yooyu yëpp mën nañ ci def asraar yaa ngi may ñun ñuy doxal ci alxuraan la nekk tàmbali si alxuraan yem si alxuraan karaamatul ay ñi nag képp koo mu koy def day tappale man maa la ko wax bu weesoo loolu nag ñu ngi ñaan yàlla def fi jàmm defal ñu jàmm defal ko bépp jullit di wax doomu aadama yi nañ dellu si jàmm yàlla te bàyyi caaxaan loolu rek mooy kàddu gi xalaqal ins wal jinn laa liya'budu bind ma nit ak jinne moom yàlla lu dul ñu jaamu ko kon doomu aadama si lépp lu mu deful jaamu yàlla pertement la dañ dellu si jaamu yàlla te bàyyi jaaxaan yi allahuma yaa muyassir kulli asir yassir naa kulli asir ne yàlla faj aajo yi faj aajo bépp jullit barke suñu Tuubaa Xaadimu Rasuul